d'accord te war na leer nag. war foofu la ñuy jaara ni rapidement continuer li nga xamante ne moom mooy bi la actualité euh, Moustapha Diakhaté placé sous mandat de dépôt euh, ki nga xamante ne moom mooy le chef Gaye moom euh, jotoon nañ ko may une liberté provisoire en attendant tamit la dernière décision qui doit provenir de nos autorités ci wàllu boobu tamit une lecture globale dans cette situation. Moustapha Diakhaté waaw waaw mais c'est la logique des choses hein c'est la logique normale des choses. que ñëpp xam nañ ko. Hmm. xam nga woon damay toog sanctionné d' abord li nga xam ne seen benn confrère def na ko. mooy ki mu seqaloon plateau muy Mamadou Awa Ndiaye xam Mamadou Awa Ndiaye man dama décrier son comportement parce que damaa gis ni Mamadou Awa Ndiaye dafa manqué professionnalisme dafa commettre une faute lu ñeel wàllum journalisme. ci naka. waaw man pour man xam nga xam nga xam nga c'est-à-dire am na ñoo xam ñu bëree bëri euh, Mamour dégluwuñ émission bi intégralité ba mu jeex. d'accord mais man dama ko topp. gis nga tey Moustapha Diakhaté certes li koy dal dal na ko def na ay dérives yu extraordinaire wax na wax yu yu yu ñàkk war ma mm-hmm. wax yoo xamante ni ku ko dégg tar sa gémmiñ mais kàddu yi mu yëkkati yëpp da ngay xool laaj biñ ko laaj ba mu tontu loolu dafa mel ni ki ko doon laaj mu di Mamadou Awa Ndiaye moom moo incité Moustapha Diakhaté pour mu tontu yenn kàddu yi xam nga boo toogee nga ne ko loo bëgg a wax foofu ñu ëpp ci sénégalais yi ànduñu ak seen sago yow lay xaar ban réponse ngay xaar ki la laaj looloo la kook kay pièce bi mu la tegal lam la tegal mooy wax ju ñaaw lay xaar nga tontu ko ki la ne kon loo bëgg a wax sénégalais yu bëri bëri ànduñu say sago ko kay ñaar lay xaar nga ne ko waaw ba pare tegal ko si kàddu boo xamante ni kàddu bu ñagas parce que mu waaw Ndiaye ku koy suivre ci ay xam ni ay plateau doo ko gis mukk muy raisonné wala di encadré koo xam ne yaa ngi jël ay kàddu di ko teg ci waa Pastef moom dafa mel ni da koy cautionné Farba Ngom dëkkam Sonko dem na fa def campagne ne Farba Ngom bi mooy ay élection ñuy mujj si politique ah nekk ci politique mu analyser ko politiquement wax ko Mamadou Awa Ndiaye bi ñuy rappeler loolu si télé bi bu dee seetaan yéen intégralité bi dañuy Ousmane Sonko bi mu demee chez chez Farba dafa ni Farba Ngom bii mooy say élection yu mujj. léegi waaw léegi nag mu ni mu ni mu ni li sonkoo bëggoon wax foofu mooy daañu la topp si yoon est-ce que Sonko moo wax loolu moom Mamadou Awa Ndiaye loolu la traduire waxu Sonko xam nga c'est extrêmement maanaam Mamadou Awa Ndiaye nee na li Sonko bëggoon a wax mooy Farba dinañ la topp si yoon est que loolu la Sonko bëggoon a wax en tant que journaliste journaliste pour man da nga war a yem si. jël xibaar ni mu mel. nga yóbbu nga tegee ko noonu. exactement mais waruloo si yokk li Youssou Ndour doon wax rek. waruloo si yokk waaye waruloo si wàññi. mais yow da moom da see yokk. te lim si yokk dafa garaaw parce que ko wax loowu ko loolu Sonko waxul loolu waroon nag dugg si intention wu nit ki pour xam nit doo ko nettalee géntam léegi nag Moustapha Diakhaté bi muy def ay dérive da ko see bàyyi mu développé nu ko neex. d'accord Maimouna ma kii euh, ki nekk 7TV Maimouna Ndour Faye léeg-léeg ci plateau da nga koy gis nit di bëgg a def lu dul yoon mu raisonné ko des fois dafay am. asu jom mi bi mu defee keroog baara baara dolli li muy def mais Sénégal yu bëri dañ daal ci kaw. ne ko da nga da nga def foot professionnel. Mamadou Awa Ndiaye nag pour man tey képp koy bépp kuréel boo xam da ngay yëngu ci wàllum journalisme di xeex éthique ak déontologie. Mm-hmm. tey da nga waroon génne génn génn vraiment condamner son comportement bi nga xamante ni am na ko. parce que moo invité Moustapha Diakhaté pour mu tenir ces propos là. d'accord deuxièmement Moustapha Diakhaté ses propos sont extrêmement graves. te wax nañ ko fii. c'est par la première fois bu doon sax première fois la nga ni waaw mais mag mu toll ni moom war a xool ay kàddoom war ko yar toog ci espace public ñëpp di la dégg nga ni képp ku ñu ku ku ku voteel ñii ku ànd ak ñii. Hmm. yow moom mun nañ par exemple mën nañ la jàppee comme comme ku alko askan wu alko parce que la république a des valeurs li ñu xam mooy dem élection bu ñu la gañee nga nangu ni gañe nañ la nga saluer ki nga ki la gañe donc yow yaa ngi rafet euh, rafetlu sax noon laa ko mën a waxee comment l' a pris ses responsabilités sur genre mbir yi dama ne la état bu am fulla ak justice bu am fulla ah da nga koy wax tout le temps Serigne que l' état doit rester dafa waaw yow lii mooy état dafa war a war a dëgër parce que lii bu ko bàyyee na nangul keneen ku mun ne rek na ko nangul mu wax lu ko neex te loolu nag fu mu ñu jëmee baaxul moo tax ma ni am na loo xam ne bu commencé feeñ si réew état bi ak justice bi ñuy teel a jël seen responsabilité sinon bu ñu ko bu ñu ko deful dinañ dem bu bës dinañ bëgg a seen responsabilité bëgg a freiner phénomène boobu dootuñu ko mun wala soit bu ñu koy def day fekk peuple bi dem nañ ba loola suuxat nañ leen ci tàggat nañ leen ci loola état bi dootu si mën a dootu leen ko mën a kii d'accord kon nag Moustapha Diakhaté la may sàkku rek mooy justice def yoonam justice def si yoonam. parce que man du ma cautionné mukk ay kàddu yu ñaaw Moustapha Diakhaté yéen a ko dégg. il a confirmé. yéen a ko dégg dire euh, ñu ne lors de. non mais mais mais li yabaate la. xam nga problème bi mooy tey man damay jàpp ni sax ñi doon toog di xeexal Adji Sarr. naan Adji Sarr jigéen la. nangam ak nangam et cetera. tey ñooñu bu fekkoon li ñuy woote dëgg la parce que jigéen lañ jàpp nañu dañoo toon jigéen. ñu jug pour défendre jigéen. tey waroon nañ def une marche une manifestation pour dénoncer les les les dires de Moustapha Diakhaté yi wax ni fii ak juróomi at dinañ fexe jigéen di jur ku mel ni Ousmane même sur la radiation de Ousmane Sonko ñu ngi ñu doon wax ne que moom itamit c'était un élément majeur. waaw mais mais mais mais Moustapha Diakhaté kay loolu loolu biti la fanaan biti la fanaan. Hmm. maintenant nag il faut comprendre une chose que réew mi moom nekkatul fa nekkoon. très bien alors liberté provisoire pour euh, Adama Gaye moom i tamit euh, mu yëkkati woon ay kàddu sur le décès du défunt Mamadou Moustapha Ba liberté provisoire ñuy xaarani tamit euh, le dernier la dernière décision bi war a jógee ci bile dossier alors ban jàngat tamit ngay def ci wàllu. waaw xam nga liberté provisoire moom dafa am ñoo xam ñooy am sañ-sañu apprécier ko. waaw te ñoom ñoo mesurer vraiment ñoom ñooy apprécier dayoy nit ki nga xam ne war nañ ko jox. war nañ ko wala war nañ ko gàntal. d'accord donc bu état bi jëlee liberté bu ñu jëlee li du moins maanaam état bi sax les autorités judiciaires bu fekkee dañ ko accordé li nga xam mooy liberté euh, liberté provisoire. ça veut dire am na fu ñu ko teg. seen appréciation noonu la toll. Mhm. mais liberté provisoire ne veut ne veut pas dire que demal bàyyi nañ la. mu ngi su contrôle judiciaire daañu ko àtte. du yàgg. donc mu euh, Adama Gaye Euh, lañ koy toppee mooy division de fausse nouvelle. Mm-hmm. maintenant nag division de fausse nouvelle mooy yëkkati xibaar yoo xamante ni yow. mi ko wax amoo ci firnde. d'accord amoo ci ay firnde. Mm-hmm. loolu lañ koy toppee fi mu nii nag moom itam la mu wax ci télé la ko waxee. y a pas une liberté d'expression buñ ko xañ li mu wax dafa tenir ay propos yu dangereux loolu moo waral yoon interpellé ko moom itam lu may wax si Moustapha Diakhaté laay wax. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp boo xoolee même tranche d'âge ay mag lañ. maintenant nag bu ñu nekkee ay mag nekk fii di xas bu dëgg bu teg ay xale si nee na xale yu yarawuñ ay xale yu yara di ko lañ ñoom itam waroon nañ mun a yar seen bopp parce que xale yi ñuy xas noonu tanawuñ leen mu leen de parce que kàddu yi ñu yëkkati ñu xale yi di ko yëkkati kon nag jusque justice soit faite man loolu laa gëm loolu laa gëm. ok c'est alors comme ni nga ko waxee léegi nii am na tamit yenn personnalité yoo xamante ne laataa ñu yëkkati seen kàddu war nañ ko gën a bàyyi xel mais si contexte bi nga xamante ne si la ñu nekk nii bërki dem maa la ko doon laaj ça doit être un exemple waaye tamit état bi est-ce que warul teg yenn mesures yoo xamante ne dina forcer la personne su toogee ci plateau mu xam exactement les choses yi nga xamante ne mi ngi koy yëkkati. waaw mais loolu au de l'état. waaw wala sax même avant l'état. mais lu journaliste bi ngay jàkkaar lool. cette prise de responsabilité. mais yow mii doo ma bàyyi fii may wax dérive. waaw doo ma ko def jaral na la nga coupé télé bi. mais doo ma bàyyi fii may toog di wax loo xamante ni benn man mun na ma mun na ma indil problème. wala mu indil la problème wala mu indil télé organe bi problème. am na télé yoo xamante ni doo fa toog di wax n'importe quoi. boo ko fa defee benn yoon. Mm. dootoo fa ñëwati. mais Serigne xaar ma jox la benn exemple. oui toog naa di présenté def wax sa xalaat nit ji saaga Macky Sall et loolu su yoon ñëwoon. ci man lay ñëw. oui du ñëw si ah, parce que dañ naan yaa cautionné dañ naan yaa télé bi sax mën na si am parce que télé bi la ñuy rappelé à après. Mhm. man mii nekk naa sa ñaari organe yoo xamante ni c'est comme ça da ngay jigi jigi ñuy envoyé communiqué ne télé nangam. ñu ngi koy ñu ngi koy kii euh, mettre leen en garde. Mhm. parce que tout simplement am na ay nit seen TV bi dal leen ba pare émission grande gueule bi ñaata la nit la la la correct. wala ñi nga xam Sénégal du moins envoyé communiqué bind waaw bind communiqué wax. tu ñaata yoon. Mhm. loolu nag journaliste bi ñu jàkkaar loolu dama ne la journaliste sax moo war a nangu nit toog si plateau di xas nit war ko nangu parce que bi li mu war a xaar ci invité mooy mu développé ko ay idées yu concerne réew mi na lii noo ko apprécier waaye ñu laaj na Sonko wax na lii ngay saaga Sonko journaliste toog di ko cautionné dina ko bàyyi Moustapha Diakhaté ñaata yoon la toog si télé ñaata yoon di wax wax ju bon ak wax ju dëng te pourtant journaliste lay jàkkaar loolu moom bañ na ko sax moom du dem sa émission de dematul ci émission yoo xam ne dafay bokk ak nit émission yi muy dem yëpp boo xoolee moom kese la parce que liberté boobu la bëgg moo tax ma ni ki war a njëkk a jël responsabilité am moo le journaliste d' ay journalistes yoo xam ne léegi chroniqueurs yi ñuy wax sax ñoo leen gën a correct loolu est extrêmement dangereux moo tax ma ni avant l' état l' état nag mun na jël si kaw ay responsabilité am parce que euh, euh, euh, l'ordre public le premier garant de l'ordre public c'est l'État c'est l'État c'est l'État boo waxee nag l'État du Sénégal c'est le président de la République c'est le garant de l'ordre national très nag tey jàpp naa ni bu fekkoon ni mooy li ma wax noonu si Mamadou Awa Ndiaye bu defoon li bu mu war a def mu mm-hmm. Moustapha Diakhaté ay propos yi du prospérer très waaw alors euh, Serigne foofu la ñuy continuer toujours sur l' actualité ki nga xamante ne tamit moom mooy euh, Cheikh Thiam euh, Cheikh Thiam ñu koy tuddee ambassadeur dinañ ko juger en flagrant délit maa ngi koy wax sànq la division spéciale de cybersécurité de la police nationale moom moo ko jotoon convoqué moom i tamit pour diffusion de fausses nouvelle kàddu yi nga xamante ne tamit yàgg na ko yëkkati dans la répétition moo waral tey ji yoon dal ci kawam sa appréciation ci moom kay boo xoolee ay mbiram sax mun na gën a garaaw parce que daf ko tàmm di ko def boo xoolee ay archive am ak ay vidéo émission yu mu doon def Cheikh Thiam bàyyiwul kenn ah, bàyyiwul kenn mais bii